bi neex na alors fu mu toll nii temps bi temps xor nañu fu ñuy mujjee mooy li nga xam ne nii balaa hmm. euh, Ballago Seck ñëpp doon coow naan fu mu toll nii day bàyyi moom nag génne na preuve waaye nag carrément moom bàyyiwul gannaaw démb bu mu defee benn statut bi nga xam ne nii def na ko si maanaam si euh, si si si wasabam daal di génne video bi nga xam ne nii dafa toog studio di woy yaayam maanaam dafa bëgg rendre hommage beneen bi tamit mooy information bi jot nañ ko léegi léegi fu mu toll nii. Hmm. Wally Ballago Seck Baye Zal moo ñu ko envoyé léegi merci beaucoup Baye Zal alors war nañ ma affiche bi génn na Wally Ballago Seck. Hmm. présente euh, Faramareen présente Wally Ballago Seck au CICES. le 27 avril 2024. macha allah waaw loolu am na solo. waaw. saa fi jaxate la nga ni ah. mënoon na jàpp ci boobu. jaxate la waaw jaxate la bi dafa neex ah eh, eh, eh, bu leen fàttali le 27 avril c'est son anniversaire. Mhm. chaque année da koy dóor. da koy dóor mais ah, Wally Seck. voilà xam nga mooy li ma waxoon fii mu ñëwaat. Mhm. mooy Wally Seck. Mhm. du am lii mu am ci musique musique defal ko lii ba. cëppaandaw gi mu ne day bàyyi bàyyiwul lii ay bad buzz la woon mhm. Mhm. waxoon naa ko waxati ko waxati ko suñ badam yi gis naa ay mhm. interview barki démboo ñaar rek ko koy fàttali ko xamal ni boo yaa nekk di toog rek nga bëgg retour bu saf grand boo yëpp mën nañ la xajal garaawul ñëwul doucement rek ngeen ngeen ci fair play mais il a réussi réussi lan la réussi bad buzz bi boo demee sax moom dafa ko waxkat yi muy àndale ko lijjanti rek boo demee yow guddee yaa ngi déglu mhm. kon nag dëgg la dafa am yoo xamante ni mm. ñun ay duñ ay dof lu bëri du ko yëg de dëgg la de. booy la rek. lu bëri du ko yëg de ay bëgg a feeñ yi la. a feeñ ñooy bëgg. mais ñooñu loolu moo seen liggéey loolu moo seen liggéey. waaw loolu mooy seen liggéey. waaw dañuy yàqal des fois nag dañuy yàqal waali balaago sekk yu bëri du caaxaan de. parce que bëri na ñuy bañ waali te ci ñoom mooy. ñoom ñooy ñu waaw da ciy bëri de ñoom ñooy <laughs> d'accord démb laa jóge suba teel xam naa question bi day ni pourquoi on pose waat ko est-ce que lu waali balaago sekk am nii moom la Sidy Diop manqué moom la Sidi Diop. maanaam lii. Sidi Diop li manqué. Sidi Diop seen vidéo bi ngeen di seen moo ngi nii démb la woon studio muy rendre hommage kii di Mama Diaga te gannaaw moo amee. 40 mhm. jours. ñoom soldat rafet sax ñoom soldat rafet. bandi la. waaw ceeb bi doo arrêté vidéo bi dimbali ma ma xool xees loolu. mu nekk soxnaam nekk fa fu mu nekk fu ne soxnaam nekk. xoolal xoolal xoolal ak a stylé. Mhm. ak a stylé. regarde-moi ça ce gamin. sale kii bu bàyyi musique fu jëm xoolal borom loxo yu xees loo may yaa ko yow mu nekk suba teel. loolu mënut a jeex yow mu nekk suba teel est-ce que du maanaam genre bad buzz yi la waa suba teel manqué précisément kii di Sidi est-ce que du moom lii la manqué le fait tey jii nii bu ñu toogee benn espace bi nga xam ne kenn déggul euh, Sidi Diop ñu def créer dara nga xam ne nii dina tax ñu bëri créer ñu ñu bëri maanaam bay xel Sidi Diop surtout muy préparer lu mel ni Bercy le 29 juin. incha allah Zénith bi waaw Zénith bi le 29 juin yaakaar naa ne Sidi Diop fi mu toll moom tamit loolu la tal. Euh, ndax xam nga fan yi programme dafa bëri. Mhm. bis yu baax yëpp maxu suba teel moo ko téye. comme ni ma koy faral di waxee parce que gis nga ko le 6 mars incha allah dafa war a tëgg Mbour. Mhm. Sali war ko toj kii di Sidi Diop. incha allah euh, rabbi donc àjjuma. Euh, xam nga Pape Diouf day tëgg foofu Iris. Iris Sidi Diop aussi day tëgg àjjuma. en plus Sidi Diop samedi aussi Sidi job day tëgg Baara Mondi. Mhm. kon ñooñu yaakaar naa ne amuñu temps le 20 avril incha allah rabbi à Londres. Pape Diouf day tëgg foofu Londres Angleterre incha allah rabi ànd koog sama gars yooyu comprendre le 20 avril bi. en plus Sir Diop il prépare son waajal voilà. album international moom tamit disque d'or la euh, bëgg. voilà donc donc tu vois donc 29 juin bi Zénith mi ngi koy waajal baax gis nga démb rek casting bi ñu doon def foofu CICES. Mhm. ñun ñëpp ña nga fa woon. mu nekk lu lu doy waar liggéey bu rafet boo xamante ni maxu suba teel moo ko jiitee ànd ceeg ñoom Assane ak ñoom DJ Yves. muy liggéey boo xamante ne wax dëgg yàlla day jàppale jeunesse su Sénégal nga xamante ne jàpp naa ne waaw ñëpp voilà nga xamante ne bu yaatoo insha allah yaakaar naa ne Sénégal ñëpp dañ ci gis seen bopp parce que projet la te projet waar la nga xamante ne am na lépp yaa tout donc y avait près de mille ne ña nga fa woon bindu woon nan te xam naa ne bu ñu jëlul ñëpp ñeneen ñu aussi am na yeneen projet yoo xam te ne ma ngi fay xew donc te dana dana dana leen woo incha allah rabbi ci kanam loolu moom xam naa ne Euh, yooyu yëpp jëlee nañ ko fa. Mhm. donc euh, kon jàpp naa ne kii di euh, Wally Seck mi ngi liggéey liggéeyam mi ngi ci yoonam kii di Sidy Diop aussi mi ngi liggéey liggéeyam kenn ku ne ñi ngi sa yoon. Mhm. yaa may dégg tey jotewuñ dara Pape Diouf mi ngi toj Sidi Diop mi ngi toj Ibra Naajo aussi gis nga ko mi ngi toj voilà mi ngi toj mais sëñ Bada dégg naa Ibro wéy la wéy wu neex wooy Ibra Naajo Ibra Naajo daf mooy wéy wéy bu tàng Pape Diouf aussi dafa Pape Diouf moom fam la ca jaa jàll gim départ fam la bàyyee baax fam ma bàyyee baax barke Seydina Mohamed mais da ngaa daanaan nga nag waaw waaw Ibra Naajo Ibra Naajo li mu wooy dafa neex mi ngi nii uus xaaral non mi ngi ci yow mi ngi ci yow mi ngi ci yow Ibra Naajo loolu moom faa ñu en tout cas avant ngeen koy seet ñi remercier bu baax a baax waa Subatel gis nañ démb acte bi nga xam ne ñoom tamit def nañ ko foofu si ses dajale xale yi nga xam ne ay jeune talent lañ euh, pour génne leen benn produit bu nga xam ni produit bu exceptionnel lay doon mm-hmm. alors mu nekk tamit idée bi nga xam ne idée bu nice la waaye idée boobu mm-hmm. sama copain lañ ko jiyee ni ko wax te dee. <laughs> Fall moo ko moom idée bi moo ko moom Ousmane loo leen nii borom bind. moo ko doon moo ko bind. en tout cas en tout cas en xale mooy xale mooy xalaat. yeneen léegi xalaat yaa ngi fi am télé Sénégal télé Sénégal boo fi duggee. Mhm. ba lamp yi tàkk kilim bi ëpp la rek ba bineer xool la jox la café rek. sa mhm. esprit day ubbi. loolu yàlla dogal na kenn ah, mënu ci dara waaye nag di leen béggee waat waa suba teel mhm. xam nga lu tax lu neex démb moom moo geste bu rafet bi ñu def ak ñun. da gis ne biñ àndee biñ wàccee. ànd ak sëñ Bada taxaw ñu ànd ak sëñ Bada foofu foofu kaf foofu rek ñu ubbil ñu porte yëpp. ci biir ñu dugg toog ak ndoog ñoom. fekk lépp maanaam bokk ci kër gi nga gis asalnoo yuuxu eh sama copain wala DJ Yves Diouf ñu mm-hmm. accueillir ñu mm-hmm. ñu toog bokk ñu won ñu c'est la famille mm-hmm. nga xamante ni loolu yi tawfeex la waaye nag ñun ñi Télé Sénégal ku leen boolewul fii moom ñu ku fi ku leen boolewul ci bagage lu na la leer ni doo bokk de <laughs> ñu wulli feebar bi moom yaa ko ne bii. waaw. loolu yu fekk fekk réewante laa koy fekk. fekk la fekk réewante waaw. yàlla bu fekk nga ay mille francs yu bëri. moom moom cofuma dafa maa woy. waaw du dubbee wu ne. ala daa daa appel. dafa appel dafa appel. monsieur Diop mos na la woy. Sidi waaw Sidi de Sidi de moom te mu gis ma naan ma ay ay jantal mara moom sëñ Bada Kéemaan sax waaye nag maîtriser wu ko miinu ko Sidi nag maa ngi lay lancer appel waaw Sidi mais maîtriser wu Sidi Sidi wéyal suñu sëñ Bada bi Pape Diouf wéy na ko mm. Sidi te damaa bëgg buy wéy sëñ Bada moom man ak yow dëgg la ñu ànd dar sëñ Bada dëgg la ku nekk yor onze mille mm-hmm. waaw moo ko dëgg ñu def par mille mm-hmm. la mu doon 33000. waaw ñu jàkkaarloog Sidi. Ah, waaw dëgg la de mu wéy ñu 33000. waaw ah, minute bu ne 1000 francs. minute bu ne 1000 francs. minute bu ne 1000 daal. ñun ñu duñ ah, def comme comme sëy bu nu muy def. waaw dëgg la wax naan la leer ni di nga jot minute bu ne 1000. ci mu ngi waaw wax ji jeex. acca jërë ngeen jëf sama gars yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax encore une fois. di leen bëggee kontaan nañ si bu baax a baax sëñ Bara borom Kéemaan euh, ku ma am ndey ku ma amul ndey Ousmane Nourey nii la Baye Fall le noble Baye Fall l' artiste bu ma artiste bu mag bi mhm. borom artiste waaye kuy bind bind rafet bi alors mhm. c' était votre émission lu bees l' émission qui est au chevet de toutes les générations demain incha allah rabbi et surtout mangez beaucoup de bananes